mooy noonu mbokkee xarit yi ñoo ngi amaat mbégte kontaan te jàkkaarloo yéen ci site bu mag bi di Lutte Motivation di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu bàyyi xel a baax xamante ni ñoo tëdd ci lal hôpital yi di leen lu gudd fan ak wér ak wér la également tamit di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la caa féete ginnaaw di la ñaanal li nga xamante ni mooy liberté di ñaana réew mi jàmm waaye tamit di ko sàkku ci ñëpp tey nag maa ngi fi nga xamante ni mooy jàmm gan seet si un très grand champion seet si ndaanaan seet si kenn koo xamante ni bu bëree mu neex bu feccee mu neex mu nekk xale di mobiliser moom Laurent Ndiago moom lañ seet ci fas yéene waxtaanam ci li nga xamante ni mooy actualité fas yéene waxtaanam tamit ci li nga xamante ni mooy plan de carrière mbokk yi dama koy bàyyi mu nuyoo génn bu ko defee ñu wéy li nga xamante ni mooy waxtaan bi Laurent le grand champion maa ngi ziar. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant waa Mariam bu sell mi waaw di jégalu ñëpp di leen fële fañ fañ fañ sa waa càccaa waaw. maa ngi lay ziar. waaw delloo siyaar na ma la rek. Ah, ah, ah, eh, waaw di bege ñëpp waaw wa aaxura di bege aduna waaw parce na ay la timis mu nax la waaw bul fàtte yalla del jaamu yalla te xam yalla lu am la eh s'il te plaît baal fëggi ngaan doucement waaw non la demee lu am solo bar sëñ Bamba fàtte yalla waaw aduna ay la timis mu nax la waaw bul fàtte yalla del jaamu yalla te xam yalla lu am la waaw ñun ñu lolu mhm. waaw Euh, tay ñu fekk la fi nga xamanteni moy mooy sa koñ tey bu ñu doon wax dëkkuwaay bi fi naka la démé wa yéen ma fekk si Dambeloo bi man ni ngeen ma fekkee gis nga yow ambiance bi fi nga ko fekk ñu nii lay dund bar señ Bamba dekk way bi la la la la utee yeneen dekk way saay fi neexna na de waaw neex torop billahi waaw wa fepp ben la mais fi tamit neexna daal ah bar sëñ Bamba loolu gën a marqué dund bi nii rek nga dañ ka mis quoi bar sëñ Bamba waaw billaahi am solo ñu gisoon ni eh, da nga waroon préparé dem fi nga xamante ne mooy France dem def li nga xamante ne mema. MMA mais yàlla mujjul antu lool loolu mujjul antu tey jii bi nga déggee ñu ne la li nga bëggoon du am eh, kii bi dañ koo refusé moment yu ñu la koy wax ak ba yëg-yëg ak mantal bi nga xamante ne am nga ko nga resté li nga xamante ne mooy tranquille ba dara dara fokk li nga xamante ne mooy sa non non waaw dafa leer nag dëgg la neexul waaj nañ ànd ak waaw ñu ñu war a àndal waaj ba mu des ay quelques semaines ñu ne ñu waaw kii génnul mais du si ñoom du si ku ko tëgg du si dara waaw luñ doo ñaan la teg waaw may ñu ko rek dañuy nekkaat suñ bopp. mu waajaat bu baax quoi. waaw ndax mbiru yàlla lay doon après quoi waaw. mais gis nañ euh, Laurent dafa nangu li nga xamante ne mooy ndogal bi gis nañ ko benn yoon mu mel ni ku xaw a frustré euh, ci bu toogee di wax ak yooyu. waaye non ndogalu yàlla tamit moo ñu fi bàyyi man bu ma nangul ndogal man day mel ni gëw ma lu ma war a gëm ko waxa mais man man lañ buggee ñàkk a may am na ñuñ mayor am na ñu ko topp daaw ren mais gars yi dañuy may rek waaw wax dëgg yàlla moom ah. amul loo xamante ne dëgg la neexul si xol sama sama valise nag ci biir. waaw maa woon sama valise maa lépp comprendre. waaw préparé lépp mais waa comme que antuwul moom ah. nañ si nekkaat rek bu yoon jeexul wax si du jeex ndax yoon ay xale lañ. mais man bu may sonn rek pour sama yaay la ko waaw barke yàlla. waaw mais mental bi mental maanaam. comme conscience bi nii. waaw compréhension bi nga am ci gars yeeg affaire yooyu nga nangu li nga xamante a am. Ah, dafa leer xam nga tey jii nii ñii ñaan ñu leen may ak ñii ñaan ñu leen di may ñoom ñoo yëpp gënuma leen. waaw daa waru tane rek moo tax nekkul quoi. Mm. waaw lool la gars naan ak kapp ci te ka ci. umundu ci ci naada waa àdduna du dara quoi. waaw daa bu waree ne bu warta ne du ne. Mm-hmm. waaw xëcc bu dagul dikk. waaw baa mu yendoo teng. bar sëñ Bamba. loolu continuité lay nekk mën nañ am yaakaar prochainement waaw sama manager Aline Gueye hmm. yee bu kiiyee nii bu appliqué bu demee nii sax tamit kii bu ñaanaatee buñ ko waree may dinañ ko may mais ba suba ba ginnaaw suba tamit buñ ma mayol sant yàlla man man fu ma war a dem sa yi si dëkk bëri na de. waaw mais tamit mais lépp teey la rek. lu jot yomb waaw lu jot yomb man war naa dem fu ne ndax entraînement pour am doole man bu ma amee doole rek am alal. bar sëñ Fallou. waa sama doole mooy sama alal. waaw sa doole mooy sa alal. Mhm. si lu leer. am na solo ñu gis bi nga bëree euh, sa lamb euh, sa lamb kii ba tey gisaatuñu la nga bëree yaa alliance Balde euh, tey ji nan nga gisee li nga xamante ne mooy làmb ak tamit lan nga namm ci làmb. waaw man boo xoolee. yee waaw met bëgg naa leen de. lépp jaam boo xoolee man maanaam. yee li ma toog bëreew ma tamit. waa MMA bi tamit xaw na see gën a yokku daal. mais ba ma gëyee bëreeg léegi ma tagul sax at. waaw mais tamit MMA bi moo ma xawoon téye ko mais instant bi moom naaj. waaw non léebaru ma sax yàlla yàlla bu ma léebar. waaw man maa ngi ci de gaan waa mais tey jii euh, loo nam mu ci làmb Laurent. non lépp rek comme nu ma daan ñëwee rek. dëgg la billaay mm-hmm. waaw man maa ngi sama bopp. gis nañ Laurent bu amee open place da koy yëngal bu ñëwee SA tamit da koy yëngal bu duggee ci biir géew day jëmbat li nga xamante ne mooy fulla ak fayda. waaw te yàlla may suturaal di ma may ndam moo man maa ngi sant yàlla de saa fii moom maa ngi baax. man. xaw ma ko baaxul mais man maa ngi baax daal yaa ngi koy yëg maa ngi baax de waaw gëm yàlla macha allah balaa ñuy xuus ci li nga xamante ne mooy sa combat bi nga xamante ne moo dox sa diggante si Ziza dañuy ñëw si signature bi nga xamante ne moo amoon démb jàmbaar production woote woon ko 2S euh, ki nga xamante ne mooy sa confrère mooy Siteu ak la de Guiers doon fa jaakaarloo démb nan nga gisee ñoom ñaar seen état de forme waaw naes dañoo méngoo tolloo waaw di ñaanal Siteu waaw fu mu ko jàpp fu dul si karaw daan ko. fu mu ko jàpp fu dul si karaw. daan ko mhm. waaw ndax waaw yàlla xale lay àndal na ko yàlla suturaal rek mhm. waaw. mais yéen a ngi am mbër mu dangereux mbër moo xamante ni dafa naqaree daal. waaw mais tamit jàmbaar la dëgër jàmbaar la boo ko daanee ñu def la jàmbaar. waaw mhm. moo tax yàlla na ko yàlla may ndam si loolu. waaw te lan mën ci làmb jooju. moo soxla. la de guerre nag ñëw appliqué comme que nee nañ moo ëpp doole waaw ñëw waaxu bo bëgg ka nax juum daan ndax làmb ku juumul doo daan yàlla na juum daanu. loolu lu ma déggee dafa mel ni euh, doo songloo Siteu la de guerre. moom lañ ne moo ëpp doole. Hmm. moo mën. Hmm. mais na ñëw wane ne moo mën moo ëpp doole. mais yow est gis nga loolu yow. non bàyyi ma ko xel sax nag. Hmm. non non bàyyi ma ko xel quoi. billaay. mais Lac de Guiers. waaw ah, Lac de Guiers mooy loolu. bokk yi nga xamante ne ñoo gën a naqaree daan. non non Lac de daa bëreewul ak koo xamante ne ni mën na daan de. Hmm. boo warta daan doo daan saay mais bu waree daan dina daanu ba xalangu. Hmm. waaw hmm. Lac de Guiers naqari daan yooyu gisuma ko si moom. mais combat boobu mën si xaar combat bu neex combat boo xamante ne amateurs yi dañuy bëgg supporters yi bëgg. barke allah gi fàllu bés la ci biir yi bu buñ jëmbatee fuloog fayda rek dina neex. waaw te fuloog fayda boobu mi ngi dépendre si Lac de Guiers. mais dégg nañ mu ne fu mu teg tànkam mu fekk waa waaw na def lool. waaw kooku boobaa da nga koy ne vingt avec moi rek mu teew ko mu waaw. mais dégg nañ tamit euh, si te ne Lac de Guiers loolu yàgg na kaa wax si signature ba du ko bu ñëwee ci laam du ko appliqué. mais bi xale lay bëreel dina ko appliqué xam na. Mm. waaw bu ñëwee nag. Mm. waaw si lay si lay xam ne ñëw neexul. Mm. waaw. ndax da adversaire yu mu doon am ak adversaire bi nga xamantene mom la muy la de guerre li leen différencier ñoo yem rek daan na Papa ci ta dan Papa so mm. wa comme ñom ñoyam yem rek seen dayoo bëri lépp ñoo yem lépp amul loo xamante ne ni mm-hmm. yemuñu ko mais ci ta moko dàq beure nak mm-hmm. wa ci beure nañ ci ta mëna beure mais nak di nga ko xeexloo ci diggante mak la ci ta lepp la def la ñu ñu ngi koy waajal amul lu ñuy baye bar sëñ bamba lip lip, lepp dañ koy def waaw forme bi nga gis demba nak di nga ko ko ba jouru ja ah comme forme bi nga gis ci site demba nak di nga ko mainteniral ba si jouru làmb ja da koy gëna yok sax saay da xalé la nun la guer tollu ci ta mëna tollu nu ko ah ci da mo gëna a xalé mais gis nañ ko démb mu ñew indi li nga xamanteni moy di dal ci kaw Lac de Guiers xam nga di ko di tàngal ak yooyu noonu. mooy yoon loolu mooy làmb yi. Hmm. waaw. est-ce que loolu mën naa perturber Lac de Guiers. Lac de Guiers démb na sax. mais moom si te lay signature lu waaye wax Zema fu la waroon wa waaw mais maanaam waaw munoo jàpp bii boor ak cawee boor. Hmm. waaw daa waroon fixé wu si Siteu rek ñee di ko wax waaw lu lu ko métti naka defar Siteu. waaw jarul muy lijjanti supporter. Siteu bàyyil xel ñi mu àndal. Mhm. waaw mais est-ce tamit jarul tamit gars yi bu ñëwee signature ñu bàyyi ñaari mbër yi ñoom ñu ñaar ñu waxtaan bu ko defee ñu toog di seetaan mën a déglu. a loolu mooy yoon mais tamit bëgg daa fort quoi. Mhm. barke yàlla nit bu la bëggee xam nga rek. Mhm. toujours boo dajeeg nit de xool da koy def ennemi quoi. waaw moo tax mais après lamb daa xam ne ñun ñëpp a far. moo tax quoi doole mën a dafa fort mais nawle tamit daa fort. waaw bëgg mooy indi nawle. waaw. nit boo ko bëggee rek nawloo nga ko. nit boo ko bëggool de xool doo ko nawloo si dara. Mm-hmm. moo tax bëgg du bëgg bokkul ak dara. Mm-hmm. waaw bilaay. loolu ndax Siteu combat distance war a bëreeg la dëgër war combat déplacement latéral. waaw loolu nag moom xoola moog ay kotsam dinañ si liggéey quoi. Mm-hmm. waaw. comme yow tey jii boo ko doon conseillé. man Siteu ndam dëgg laa ko mën a ñaanal. waaw mënu ma kaa conseillé lu dul ñaanal ko ndam. waaw. billaahi am na solo. dañuy ñëw si nga xamante ne mooy Ziza coow li bëri na te làmb ja ñëwagul Ziza mm, euh, nan nga ko yebee yow yow Laurent. Ziza dama kaa yeb. boo yeb kay. si oto wala si saret wala si fan. <laughs> dégg nga yeboo si saret. waaw ah, comme si saret laa xeeb yeb naa ko li ma waaw. Eh. Ah. mais le choix bi a bëri rek. waaw hmm. ah, il egg fu samay mag egg. waaw hmm. ah, man lamb ne ma fa war a yàggal sama yoon quoi. dëgg moo tax. mais dañoo dégg ni combat bi gars yi ñoo ngi ko doon dox. mais ñu tàll Ziza micro mu ne làmb du ko jël. mais après finalement gis nañ mu jël waaw mu finalement mu jël làmb. mu jëyee jëlaat ko hmm, waaw comme tamit mooy loolu. xam naa daa demoon si ay ñaan katam xool lu ba pare. bu leeree mu jël ko mais man daal maa ngi waaw kenn joxaguma avance nag maa ngi waaj comprendre nga. Mhm. combat boobu waaw Fallou Ndiaye woo si waxtaan nañ si si combat Ada Fass bi la ñuy waaw. Mhm. yaa ngi waaw. ma ko tëgg. non xaas tëggul sama combat de. Hmm. ku tëgg sa combat mooy ku jox avance nga téye wala. est-ce que nekkul loo xamante ni waxtaanee ngeen ko après. a waxtaanaguma ak kenn waaw man boo ma fayul moom bëgguma di toog sax di naan ay mooy loolu. waaw. mais dem Ziza jël naa ko ñu waxtaan. ma ne ko nag yaa ngi day mbër mu dangereux mbër moo xamante ni dëpp mu ñëw ci làmb mu ngi def ay preuve mu noo booy bi lu tax mu ñeme ma bis bu ñu ñun ñaar dinaa ko won waaw la demee saa Ziza du yàpp du jën. visa du yàpp du jën. dua yàpp du kooku du ma taaral fenn du dossier quoi. du waaw si seen gis-gis nag daf may ëpp fuuf. voilà waaw sut ma tamit comprendre nga. mais bu ñu wuree ba pare loxo dar gémmiñ. kon loolu yëpp du yàq dar ci làmb ji. non non tout sauf ça. mais ñi nga bëre lépp ci man mm. ay furus laay kontaagal. waaw ay tigre de. waaw di kontaagal façon daanaan bu ne. waaw tamit. di contact ay jàmbaar nekk si écurie waaw tamit moo tax quoi bokkuñu sax. mais nee naa ko booy bi est-ce que sañ ngaa xeex ak moom si rek man dégg daali de muñal. bu bëgg rek barki allah ji fal bu xeexeek man dégg daali muñal. loolu foo ko teg na bagaara saay dañ maa fayal xaalis bëri may jàng xeex. nee naa Laurent dafa mën a xeex mu ne ma contre alliance Baldé da daw ma ne ko dawul dañoo xeex ba génn saako. bañ xeexee ba génn saako ku faju ji. man ñi ma dóor ñëpp dañoo faju ji saay te ñooñ ba may bëri ñoom sax jànguma xeex. mais instant bii laaloo dañ maa fayal. may jàng xeex. Ziza day xeex ak man sax moom. xelam may na ko loolu dañuy. bu ko xeex ak bu ko nakkaree. Eh. bu ko safee bu ko saful. Ah. dañuy xeex par force pour xaalis bi barke. <laughs> pour xaalis bi barke quoi. ñuy hmm, samp jaaga rayante nga naan ma. mais ku Ziza boo ko recevoir. man lu ma recevoir bëri na barke yàlla ay concu kanam sax dal na ma. Hmm. waaw te yii moo gën a diis loxo. Hmm. non Ziza du problème quoi. Ziza daal du naa ko trop mais. billaahi kooku mënuma sonal si dara. disa mën naa sonal si dara. non non billaahi mbaat ba nga fekk saal mu yëkkati noonu ay. weñ ba bii sangu lool di res. saal mooy def ni ñu mel boo duggee saal ni yëkkati. sa eh. léppay tigeeku mais boo sangoo léppay res. léppay res waaw saal mooy def ni ñu mel quoi. mais est ce tamit li mu bëri contre Bousse est ce que newul loolu moo tax nga ñemee ko tamit. daa bëri Bousse. non bàyyi ma ko xel nag man daal gis naa bëre woon nag ay champion ay Modou Awa Tine. Mm. waaw ay sama yoon bëre nag ay Modou Dia. Mm-hmm. waaw moom ancien la ay Aziz Pambaay gis nga bëre nag ñooñu te waaw. Mm-hmm. Pambaay fu mu ko jaaroon mm-hmm. dina ma ko wax. kon combat moog Boucher seetaan la wala. non bàyyi ma ko xel rek dañoo bëre kañ. bëre de. kañ la. Ziza nag ah, ko xel Ziza de. <laughs> nee na ma yéen ñaan ñëpp lay defaral bagage ak Daouda Sandwich. yàlla na ko Daouda daan deg aal ma barke allah gi fallu te lan la wax bu ko Daouda daane. Hmm? wala waxul lool. looloo nee nee nee da daan ñëw làbbali la yow. mais est-ce que Daouda ko daanee est que tamit combat bi du gën a métti ci yow. loolu laa bëgg làmb ju saf laa bëgg barki leeru alxuraan. xam nga damaa bëgg mu daanu alliance bale ba ma koy jël. car hmm. fora moo ko daan ma xam ne bii duggaat jàmm gën da kay jaral. waaw da siy teg bakkanam hmm. ma jël ko daan ko. waaw man si risque rek laay dox saa dama soxla lu nekk sama ginnaaw daa bëri. Hmm. waaw si saa yàlla nañ ko daan nga xamante ne day bëgg làmb ji. ànd ak ñëpp ñu mu war a àndal. ñu koy pompé ñu ko pompé yëpp mu ñëw. waaw ñu jëflante. Mhm. saa bu ñu wuree ba pare loxo dar génn. mais neen dafa am lu mu bëgg ci làmb ji làmb ji da jaral sa diggante ak moom nee na parce que yow boo ko daanee mooy loolu quoi. non non seetaan naa ko daane bu ma ko daanee après mu defaruwaat nekkaat si boppam. Mhm. waaw ku gëm yàlla dëgg la wax. Mhm. waaw mi ngi bëri man xam na ne mun naa daan ku ka waaw ku ko gën a aju. Mm-hmm. waaw moo tax bu ma ko daanee day fëggatuwaat nekkaat si boppam rek. Mm-hmm. waaw te bu ma ko daanee ba pare bu amee combat feneen fu dul jàmm gën yàlla may ko ndam. Mm-hmm. waaw mais maa ngi moom moom da koy dégg muñal. muñal la koy dégg. waaw. mais tamit est-ce que doo bàyyi tamit fi ngay dugg. léeg-léeg ci yenn këram yeg yooyu noonu. ban këram. Ah, kër yaay non. waaw parce que parce que. yaa non non loolu boo ñëwoon sax boo joxoon Yaay Fall dara bu bu Yaay bu ñëwee bu ko joxee sax pour dara pour mu naan ko ak yooyu. moom da koy jël sama link la ñoo bokk koñ bi. loolu laa wax ne naa gën a jege gën a yaay. non ñoo bokk mafia moom daa topp si Yaay Fall ngir lan pour mu ñaar. Hmm. man Yaay Fall daf may bëgge. Hmm. daf maa bëgg. dëgg la waaw. mais nee naa ko gën a gën a jege gën a yaay. déggoo li ma la wax. yaay Fall du ñaanal tapet. <laughs> saa si saa mënuma di wax agum si moom nii sax bañ eh, te bambara la quoi sama mbokk bambara yi nii gis nga. <laughs> ndeysaan. mais foo la ah. këla meer geñ. këla meer ku ëpp doole. Eh. ku ëpp sañ-sañ. ku gën waa am vision bu nekk sa kanam yàlla na la yàlla may ndam. barki maa la waxoon damay def émission. barki allah gi fàllu. Mhm. yee tamit nañ wuree rek buñ wuree loxo darge man ni ma ëppee moo ma neex man damay bëgg mbër di ma ëpp. moom moom nee na combat bi da ciy gën a yokk poids. na ñuy lekkaale petit poids <laughs> mu gën a neex quoi. illégal ah, mu gën a neex waaw mu doon poids sur poids. mais da nag man loolu moo waral moom noonu laay dundee lu taxaw sama kanam moom ah. Mm. non dawul sama yaram waaw Ziza gaan. Mm. moo loolu du du sax mais am na fi ñu bëgg a jaar quoi. dëgg la bu ma ko daanee. Mm-hmm. ñi ma bëgg man ñi ma war a bëre laa bëreegul. dëgg la mais nga dugg génnaat dugat duggaat fa yoy tam est-ce wa pikin tam tamit du ñu non man pikin bi yepp may sa man Ziza lay beurel wa galé Ziza sa beurew ma ñam Ziza lay beurel wa man dom pikin la mais dama may fan si foofu du jeex bir galem sax barki leeru alcorane dañ ma fay bege billahi walaay taala bu ma ko ba ci goudi gi ku dëkk galem dina ma vocal na ma lu mun ta ñàkk mu am ndax ño mais ñun yow lañuy bege dëgg am na ngay jàllale ay messages yu am solo si jeunes yi nga xamante ni ñoom nga nekkal am na ñoo xamante ni judd nañ gisuñu seen yaay am na ñoo xamante ni judd nañ gisuñu seen baay am na ñoo xamante ni ñoo ngi nekk ak seen i waajur tey jii boo amoon benn message mooy lancé si ñi nga xam ne jeunes yi xamante ni dañoo perte seeni i lan nga leen di wax ak ñu mun a amaat li nga xamante ni mooy espoir ci réew mi. waaw dafa leer saay man looloo may tax a am naa fi boo yoo xamante ne yaay gisunu papa wa ah, te man ma len mag bu baax ñu seen njëriñ mi ngi ci man wa ah, yàlla na len yalla may luñ suturloo mais man mi wa dam say am responsabilité bu baaxa ba wa ñen ñi tamit ñu kër gu seen papa moom wal seen yaay ñun ñoo payam dañuy nekk di luweeg yoy comprendre nga ye man dama war a safe honoré sawaay saa man lu may gis neexu ma waaw man damay gis loo xamante ne nii daf may métti barki leeru alxuraan moo tax xam man bu may reyante man ñi may bëreel ñoom mag fuuf mm, duñu sax moromu liis mais man daa am loo xamante ne dama kaa bëgg te tamit si gaawaay mm-hmm. yee ma exploité mm-hmm. booy war a am ku nekk xam man booy buñ amoon deg naa sam bamba maas na xoola ma bàyyi la am mm-hmm. waaw njëriñu jeunes yi jeunesse ci réew lan la maanaam jëriñu jeunesse si réew mais liggéey mais tamit bu la nit ñi jàppalewul gaan ngay dawaan boobu ba tey ni amoo foo liggéey da ngay mbuggee sonn bilaay mais saay man ay liggéeykat rek laay àndal barki allah gi fàllu fajar bu ma jógee entraînement mun naa dem ku si nekk sa gàlle yeela teg la sama mbutu la ba fu ngay liggéeyee ñëwaat gaare barki leeru alxuraan ay liggéeykat kese laay àndal mais ñenn ñi xam nga rek mënuñu denc dara ndax lan ay location ak xam nga yay taxaw yee rakk feebar wala mag feebar nga dawaat jaayante ko day xaw a métti quoi mais bu yoon jeexul wax sin du jeex waaw ndax ñun xam naa ne waaw ay doomu jàmbaar lañ de waaw. mais góor mën mën naa ko. barki leeru alquran lu jambar man man nako wa waaw amul lu gor di man te man mi mënuma ko yee waay wax baxul way mais léeg nit ñew lona ji sa ne dama bu nga fajal ma ko tey jii moment yooyu noonu boo yorulee li nga xamanteni ni la la laaj loolu la la lay def waaw ah, moo côté ak ma sante yalla sak sag bu ma nit di di soxlam daj day fekk ma am ko wa sag bu ma nit di di soxlam day fekk ma téye ko day ñëw rek day mel ni moo ko fa waaw bu paree ma xam ne kii lii liggéeyu ndeyam la. Mm. dama ko kaa denceloon rek. waaw man moom ma ko quoi. billaay wallaay taalaay mais waaw. billaay lan la la sëñ Fallou moo tax nga ñëw toog fi bu doon galas doo ma bàyyi xel sax doo ma xam. yii dëgg yàlla doomu njaawalaa si ndey ak si baay mais waaw bu méttee dëgg ma xam ne mooy loolu noonu non ma gis si ay affaire yu garaaw barki allah gi fàllu suñ fàllu def na si man loo xamante ne nii tayir la naa deg billaay waaw tayir la naa sayir la naa billaahi waaw barki yonen wa mun sa faa ngir nga dolli xewal yu saa barki yàlla waaw ba mu jugee mbàkke baari dajeeg ñoom kajeewal Bamba ne leen day fanaan mu gàntu fa yàlla ana ñu neewoon ne xel du mës a xalaata naafile sa birama yàlla waaw ñu neewoon xel du musa a xalaata julli ñëpp seen pexe jeex na waaw gis nga moo tax ñun réew mi lu ne lañ fi xam waaw bar sëñ Bamba waaw ñun saa dañoo bàyyi lépp faale yàlla waaw loolay bàyyi faal ñu bàyyi lépp faale yàlla waaw sëñ Fallou may na ma lu ne barke allah gi fàllu waaw gisee naa ko fu ne waaw bu bu xatee ba xat sax mooy teew waa comme galas a tax ñi naan galas de waaw sëñ fàllu rek yow Laurent maa ngi lay kontaane di la jaajëfal si sa disponibilité waa gis nga yéen ñun ñoo far c'est la famille quoi mm-hmm. bar sëñ Bamba waaw mm-hmm. yéen ñun ñëpp a far dërëm bi génnul gaal gi waaw bu duloon yéen ñun ñi sax kenn duñu xam mais moo tax toujours rek yéen a fi am daal. waaw. acca mooy noonu am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax si disponibilité am di ko kontaanee di ko ñaanal plan de carrière bu réussite à chaque fois gis nañ buy wax rek euh, day jàllale message bu am solo ci jeunesse bi kon jeunesse bi Laurent mu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye du nuyu ki nga xamante ni mooy xës daal moom mi nga xamante ni moo nekk ci cadrage bi waaye du nuyu sama xarit sama doom yaay euh, muy euh, jogo jogo borom fruit yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar moom dañuy bàyyi xel bu baax a baax di wax seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen daanaan jaa ngeen jëf